information yi gën a fës ci réseaux sociaux yi waaye bokk ci ñu gën a commenté moom la ñu coxama xumande la détecteur fu ma war a commencé sax laa xamu déjà dafa bëri te waaw <laughs> billaay bari na. Mhm, bari na ku ne xam na ne temps yi moom. Mhm. waaw information yi mooy loolu waaye nanu nanu commencé fi ñu jeexale woon keroog. Mhm. mu di euh, remaniement bi amoon euh, keroog ni ki euh, vendredi. bi passé le je crois. samedi samedi samedi la woon. donc daanaka bi ñu ñëwee keroog maar mardi am na ci loo xam ne ni bëggoon nañu ko tënk. waaye temps bi daf ñoo xojoon lool lool waaye dañ koy indiwaat rek parce que bokk na ci ay ministres yoo xam ne nii ak fi réew mi toll. comme ni ko xale yi di waxee jamono ji ministre yoo xam ne nii dañ leen a fal bokk na ci premier ministre PM mm-hmm. bi nga xam ne nii ba mu eggee ci këram ci makkaanam dañu ko rek daal di sargal mm-hmm. ay mbokkam génn nañu xaxar euh, xaxaroo ak moom mm-hmm. ree folklore ba ah, ku ci nekk am noo def ak di ko wax ne ko sa ndey ko liggéey am na ci yeneen ci ay ministre yoo xam ne nii aussi def nañu ko mais démb bi jaaxal internet yi moom mooy euh, le ministre Matar Ba mi nga xam ne nii la doon def passation de service moom ak ki nga xam ne moom mooy ministre bu yees bu sport bii di Euh, ko ba jatara mu mel ni nag démb euh, kii di Matar Ba ñii nga xam ne ni ñoom la séqaloon liggéey bi wala tam mhm. ay militant am ñëw nañu daal di koy nag euh, jàppale mhm. waaye itam ñëw nañu mayaat ko doole mhm. joxaat ko confiance bu baax a baax a baax di ko wane rek yow yaay mbër mi nga xam ne yow yaa mën te dangaa daan ba noppi gis nga comme ni ñu ko tapenda euh, di wane nii démb mu am nag bousculade am na bousculade am na waaw ministre des la amee am na bousculade bu baax a baax a baax ba tax na démb ñu bari bari ci internautes yi dañ cee daal di bàyyi seen xel bu baax a baax a baax di wax ni lii euh, folklore bi nga xam ne ni moom la ñu indi euh, ci falin gi nga xam ne dañ leen ko fal mais tam mhm. ñu bari bari ci internautes yi la ñu wax moom mooy que bu fekkente ne ñoom ñaar kii dafa indi ay géwalam kii indi ay géwal ku ci nekk ñu lay tagg ci sa ay maam ku ci nekk ñu lay tagg ci ay jëf ak ana sénégalais yi leen di xaar ba pare nee nañ sax mataar Ba dafa génn ci loo bi waaye itam moom mi nga xam ne tey ji génnagul ci loo bi na xalaat bu baax a baax a baax ana attente yi lan la ci sénégalais di xaar ci moom ba pare fi mu nekk nii dafa seere lool ci moom donc war naa tal euh, leneen lu dul lii mu tal tey ba tax na ñoom ñëpp lañu ko boolee maas nun gi que ñi nga xam ne ñoom ñoo di ministre yi nga xam ne actuellement ña ngay bàkku bu baax a baax ci kaw seen ndaye liggéey li fal ministre nañu xam ne actuellement li leen dese mois képp la xaw ma 15 mois mm. te it yi dafa bari sénégalais ñu ngi leen di xaar ci loo xam ne ni yaakaar naa ne bu seen nday liggéeyee mhm. ci fii ak 16 mois yi dinañu ko xam bu baax a baax mhm. ku ci bëgg a génn politiquement taxawaat politiquement li sa nday liggéey nga euh, bàkku ci ba mhm. keroog ngay jeexal politiquement nee nañu euh, fii nga ko war a wane ci 16 mois yi nga xam ne nii fal nañu leen ci euh, salma ba tax na aussi am na ñuy bari ñoo xam ne nii man ci sama xalaat bokk ñu ngi koy waxee Matar Ba bi ministre des sports bu yees bi Diankhoba Diattara jëlee parole nee na ko nekk invité d'honneur bu mondial bi nga xam ne incha allah ca hmm. Qatar. Euh, bu soobee yàlla Sénégal dina ca bokk. Hmm. nee na mooy invité d'honneur bi waaye dama naan gasal na ko kàmb kàmb gu rëy rëy rëy la ko gasal ndax Matar Ba bu fekkee bëgg na wayam wii. Hmm. nga xam ne ni moom la ko sénégalais di way nii ci euh, li mu def ci sport bi nii ci huit huit mois trois huit. huit ans trois trois mois yu mu fi def. bu demee ci mondial bi la koy réccu lay xam ne sénégalais bi bien sûr. kàmb la ko gasal su demee dina su demee su baaxee dinañ na kenn du ko ko sante kenn du ko gërëmee dinañ fàttali mu def te subaaxul dinañ na ko yow la ok waaw kay da ko gasal kàmb gu rëy a rëy rëy na bàyyi xel bu baax a baax ci lool te su doon maay moom rek ak politiquement ak fii bàkk bi yem. fii mm-hmm. fi la koy yemale teg ndëndam en en te mm-hmm. bàyyi ko moom mu dem doxal ndax fi mu nekk nii moom waxtu bi xat na lool ci ñoom. pour ñu mën a génn mm-hmm. mondial yi ak jàmm mi ngi noonu c'est très important. Euh, surtout nag koo xam ne nii. dafa indi ay militants am nga indi say militants. xam nga bu ñu waxee dañ naan dañuy tax mais ñun li ñu gis la ñuy analyser loolu la ñuy wax mu indi say militants nga indi ñu koy tagg nga di diirante ay mbagg foofee moom mu ëlbatiku invité waat la bu demee dina ko réccu lool en tout cas doy na waa <laughs> loolu man dégg démb daal en tout cas j'ai comme quoi Matar Ba moom dam doon dem ay proche collaborateur am dañ doon sëgg di jooy xattit comme xale xëy na aussi liñ leen ji moo tax mais aussi lii nga xamante ne moom la gis ku mel ne xew aussi moo amoon foofu ci passation de service rek je pense passation de service ministère c'est-à-dire quelque chose d'institutionnel mm. mbir la bu nga xamee nag institution cest à institution la mhm. c'est institutionnel encore une fois mhm. te dañu dem ba maanaam au Sénégal nag yàlla daf ñoo nattu ba c'est devenu politisé mhm. jusqu'à un point boo xamee ne que kenn du mesurer importance li nga xamee moom mooy alors contenu wu euh, kii di dem lan mooy la mu bàyyi ci loxoy kii nga xamee ñëw ak yan mooy objectif yi kii te loolu mu ëppoon so importance ku nekk di woo say surtout ça ñu daal di euh, euh, gaawantu rek waxtu bi bala mu ndax am na ci yeneen euh, ci ay sujets yoo xam ne bëgg nañu ko évacuer laata ñuy dem bokk na ci Barthélémy Dias bi nga xam ne euh, député maire mhm. euh, bu Ndakaaru bi nga xam ne ni ni ki démb procès en appel bi nga xam ne ni moom moo ko laajaatoon ni ki démb lañ ko ibbiwaat waaye laata muy génn ca Baobab ga mu dëkk ca dal mhm. daal dinañuy rek boucler wala sax bâcler li nga xam ne ni moom mooy procès boobee ba verdict bi daal dinañ koy joxe mhm. moom mi nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias ñi nga xam ne ñoom ñooy këru attekaay ba génnewaat faatu ñu yotta ca li nga xam ne moom la ñu ko daanoon ah. ci ñaari at don euh, six mois ferme maanaam ñaari at yoo xam ne juróom benn weer yi ku ne xam ne tëdd na ko waaye itam ca ndàmpaay ga ñu ko daanoon ngir mu jébbal ko ñi nga xam ne ni ñoom ñooy famille euh, njaga Diouf mi nga xam ne dañu ko jiiñ ne euh, moom moo ko faat ah. ca atum 2011 jàpp 2012 ah. ci bi bi ñuy rek tere maître Abdoulaye Wade ngir mu am troisième candidature wala troisième mandat ndax troisième mandat jotu koo am sénégalais nañ ko boppam tax na démb nag ñii di internautes yi bàyyi ci seen xel bu baax a baax waaye itam euh, ñu koy commenté bu baax a baax bokk na ci sax moom Barthélémy Dias ci guddi gi euh, fële ca TFM ci euh, émission bii di Faram Facce na fay def émission bu yaatu boo xam ne mhm. indiwaat na ci ay question yu bari bari yoo xam ne internautes yi doon nañu ko laaj mhm. moom ba tey jii la mu taxawoon fara taxaw ba tey nangul mhm. benn yoon procès bi ak nañu ko tëggee nee na daal rayul rayul te fa mu taxawoon la taxaw ba tey ji te la mu waxoon la wax ba tey ji waaye itam lu bari bari lu jaaxal ñii di internautes yi moom mooy euh, euh, euh, mbirum yoon ak ni muy doxee fii ci Sénégal nee na daf leen a jaaxal te it jaaxal nañu baree bari te suñu mhm. waxee suñu dëgg ci analyse yi li ñu yàlla may as as as néew mhm. ci li ñu li ñuy mën a xelu bokk na ci loo xam ne ni jaaxal nañu bu baax a baax mhm. ndaxte bu fekkente ne nguur dafay toog pour jël li nga xam ne ni moom moo di justice def ko yatu xeexu kaayam ku mu bëgg mu dal la mu dal la day daal di bëgg a metti parce gàddi gi ñu mbir mi jaxasoo na ndax boo dee xool diggante wàllu Sénégal ak yeewi askan wi nga xam ne ñoom ñoo boor boorloo tey ji seen mhm. doole ba mën a xeex ak euh, président Macky Sall mhm. ñoom ci seen ginnaaw en 2011 ñoom ñoo nekkoon ci guuta googu mhm. ba tax ñu jiiñoon kii di Barthélemy Diaz euh, euh, faat doomu aadama bi ñu ci jógee ay quelques années après président Macky moom moo génn daal di seetal Barthélemy Diaz ba mu seet ba pare wàllum politique mu daal di ko ciy jox ab poste tey jii ndax a Mm. mu nekk nag loo xam ne nii politique gu Sénégal moo ni tëddee yaakaar naa te nit ñi war nañ cee yeewu bu baax a mm. baax mais aussi ci yeewute gi bokk na ci président Macky Sall mi nga xam ne moom moo seetaloon Barthélémy Diaz euh, bërki démb mm. tey ji moom moo ko taqalaat parce que lan loolu la ko arrangé dossier bi loolu la ko arrangé parce que ku ne xam na ni avant euh, euh, référendum yu 2016 yi mhm. avant Barthélemy Diaz di détaché wu ñoom ci seen euh, ci PS gi nga xam ne dafa mujjee woon a seey ak feu Tanor Dieng dafa mujjee woon a seey ci benn Bokk Yaakaar mhm. àndoon ak président Macky Sall ba mu détaché woo la ñu gis que ñu ubbiwaat li nga xam ne mhm. tey ji moom mooy procès bu Barthélemy Diaz parce que dañu ko def seen yatu xeexukaay comme Barthélemy Diaz nekk na tamit koo xam ne nii opposant farouche la boo xam ne gis nañu ko li mu yàq président Macky Sall ñu ne xaar ñu jëlaat loolu yat boobu tegaat ko ci kaw muy wàllum justice te ni ñu ko mën a jàngatee ci Barthélemy Diaz noonu la ñu ko mën jàngatee ci Khalifa Sall képp koo xam ne ni euh, opposant farouche nga daanaka am nga wàllum yoon ne sax ñun ñëpp ay justiciable lañ war nañu am euh, euh, xëy na ci bu ñu amee waaw waaw kay mi ngi noonu war naa am mën a am mais tam dafa gën a fees ci wàllum politique gi mm-hmm. bokk na ci ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo jamono ji waroon na leen fekk ci wàllu Sénégal mm-hmm. ñu ànd ak Barthélemy Diaz tey ñooñu dañoo daw seeyi ci euh, Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ndax lan dañ doon daw lii Barthélemy Diaz li ko dal tey ji ci wàllum justice moom lañ doon daw mm-hmm. euh, jël mën naa ci jël ay exemple ana Babacar Gaye bu PDS bu njëkk ba ana metre amadu Sall bu PDS bu njëkk ba ñoom ñëpp tey ji ñu ngi ci président Macky Sall am na 39 euh, ministres yi nga xam ne ni moom Abdoulaye Wade amoon na ko ci 2011 2012 39 yooyu kenn rek nga ci mën a seppi 38 yëpp mu ngi ci Sall lan moo ko waral moom mooy du fa jël euh, wàllum euh, yoon teg ko ci digganteem ak ñoom képp koo xam ne am nga ci ab ragal rek da ngay ñëw fekk si ko ñëw ànd ak moom ci ay bëgg-bëggam ak mm. politique am képp ku ko bëggut a fekk si nga bëgg a nekk ci opposition bi jël na wàllum yoon teg ko sa digganteek yow mm. buñ ko dee wax bëggaan géy daan ni de bàyyiwu ko mm. parce que yoon ak Sen TV ku ne xam ne di daaw ak ren am na ci Barthélemy Diaz yoon ak ak ak digganteem ak yoon ak digganteem ak nguur euh, Ousmane Sonko Khalifa euh, Khalifa Sall euh, Karim Wade képp koo xam ne taxaw nga dëggantaan pour dëgg sa bopp ci ak opposition bi jël na loolu daal di koy teg sa digganteeg moom mu nekk nag loo xam ne nii internet itam bokk na ci loo xam ne xalaat nañu ko ndax xel-xel le dong la euh, ci ñaaw gi mu ñaaw ci kaw bu la arrangé ngay ngay mhm. teg bu la arrangé mhm. teg mhm. yaakaar naa ne wàllum yoon bu ñu ko jëlee tey ji ba di ko xeex def ko yatu xeexukaay nguur jël ko def ko yatu xeexukaay loolu moo jara nag taxaw seetlu te procès yoo xam ne ay procès dix ans procès deux ans procès un nekk loo xam ne nii dañ ko war a évacuer mu jeex ndax yoon amaat ci dëkk bi ndax bu ñu demee ba jamono ji ñëpp yeme ñeme yoon ñëpp ñeme ñi ne ci yoon amaana doxalinu nguur la doxalinu nguur bi nga xam ne tey jii euh, bàyyiwul yoon benn yoon mu dem ak na mu ko neexee ak na mu ko mm. bëggee mm. loolu da koy andi bu baax a baax donc mm. nañu bàyyi yatu xeexukaay et l'on se mm-hmm. rappelle peut-être kaddu yi nga xamante ne euh, président Sall yëkkate woon na ko autant pour dire que moom Barthélémy Diaz légitime défense la def ndax euh, ñi nga xamante ne tey jii ñoo ki ki nga xamante ne je moo ñàkk bakkanam ci loolee di Ndiaga Diouf mm-hmm. moo fekk si ki nga xamante ne moo di Barthélémy Diaz ci mairie boobu et puis bu ñu mhm. xoolee aussi enquête bi nga xamante def nañ ko expert balistique bi tey dafa setal bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz bi tiré ute na ak euh, bi nga xam moom la Barthélémy Diaz wa et je pense que loolu rek loolu rek war na ndërmeel li nga xamante ni moo di moo di bi vite fait Mbaye mhm. ñoo ko doon attaqué mhm. nervi yi ba tey kaa yooyu mu ngi fi ñëwaat na nga gis ni ku ci nekk euh, tey euh, parti au pouvoir rek na ngay wut say nervi bopp tey jañax leen ci askan wi janoog ñoom euh, li xale yi naan affaire yi na tolloo mbir mi ah. dafa tolloowul na ngay gis ni euh, na ànd ak man ma ah. faat la àndoog man ma bundu xatal la te ngay mm-hmm. nekk pur sénégalais lan moo mm-hmm. tax loolu toujours ñuy dund ci loolu mm-hmm. mu nekk lu am solo ba tey suñu taxawee ci loolu am na beneen vidéo boo xam ne euh, euh, euh, Salma mi ngi mi ngi mi ngi daw ci réseaux sociaux yi mu nekk ab policier boo xam ne nii mu ngi ci aw kap ci kaw kapootu oto benn Ford boo xam ne nii daanaka vidéo bi mu ngi circuler mu jële ko nag ci bërëb yóbbu ko ba ci bërëb nee nañu bi mu ko jëlee fi nga xam ne ni foofee lañ ko doon arrêté ndax policier la boo xam ne ni ci circulation gis nga ni ko na di wanee mi ngi ci circulation bi arrêté benn oto boo xam ne nii dafa bëggoon mu taxaw ngir mu laaj ko ay pièces am comme ñoom ni ñu koy defee rek policier yi euh, kaw tali bi euh, ci la euh, kooku nag daal di accéléré ci kawam moom na mu tiitee nag tax mu tëdd ci kaw oto bi jàppandu ba dëgër oto bi daw ak moom 500 mètres yoo xam ne nii nee nañu moom moo jaaxal ñëpp ba ñëpp toppoon ko ñii di filmer côté bi ñii di filmer côté bi ay vidéo yu différent la dañu ko boole taqale ko pour mën a am li nga xam ne moom moo di suitu suitu mbir mi ba tax na gis nga ci suite bi moom dafa daal di taxaw sonn lool di expliquer ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekk ñi témoigner que waa kat moom da ko doon euh, bëgg a vérifier waa daw ak moom euh, ci noonee nag la ñu jàppee waa ji moom tam waa joojoo nee nañu euh, mi ngi jamono ji ci police centrale ndax boobee la ñu ko daal di def garde à vue commencé nag ci enquête bi lan moo waral mbir mbir mi ak lan moo ko ci yóbbu moom waa ji nee na gisul woon policier bi ci kanamu otoom nee na daal loolu la expliqué waaye yaakaar naa ne lii moom ak tayeef képp moom moo ko jur te yabaate gi ñuy wax gi ñuy yabaate gi ñuy wax ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy euh, daanaka askan wi mm. ak ñi yëngu ci wàllum justice mm. ñi yëngu dama koy rek firndeel ñi yëngu ci wàllum yoon ak ñi nga xam ne dañoo taxaw takk seen garaat war a yor suñu kaaraange mm. gis nga seen diggante ak askan wi fii la toll nga xam ne ko euh, réew mi fi mu nekk ni mi ngi à comme ni ñu koy waxee fii la réew mi toll ci ci lii yaakaar naa ne lii kenn du ko rafetlu kenn du ko rafetlu waxuma la sax graat yamu yamu yamu làmboo waxuma la ci ay jëfam ak ak yeneen mais tamit euh, doomu aadama bakkanam mhm. nga nga mettre ko en danger nii mhm. euh, selon moom li mu def mhm. bokk na ci man bëggoon naa ñu ñu ñu def enquête bi laaj ko ndax moom exactement wér na wala ba koy def ndax euh, il était euh, nekkoon na waaw waaw doy na waar lool lool lool nga xam rek nga gis rek fi Sénégal toll ak sénégalais fi ñu toll ci seeni ay xel ak fi nga xam ne ni tey jii moom mooy moom mooy mbir mi ba tax na tam dañuy delluwaat ci wàllum politique dama doon firndeel rek li nga xam ne moom mooy diggante sénégalais yi ak ni ñu ñemee yoon jamono ji ni ñu yeme ñemee borom dem na sax ba ñiy commenté dañuy wax naan 1000 francs jarul lii parce que policier bi dañuy waxal 1000 francs da doon dàkk ci moom xëy na bu ko liyaatee comme di bàkkee tous les jours parce que lu ñu wax mm. gis nañ ay vidéo yu viral yoo xam ne mi ci internet bi mm. ay policier ñu leen di ñu euh, ñuy laaj xaalis ak yeneen ak yeneen donc loolu dootul lu fi bees du mm. coro moo ko wax tey donc am na ci ñu bari ñoo xam ne loolu la ñu yor ñoom policiers yi daanaka doyul. Mhm. Euh, bokk nañ ci corps boo xam ne ni xëy na ñu ngi ñu ngi xëy na liñ leen di xaar ci dimbali askan wi. Mhm. Euh, matale wuñu ko parce que kat seen loxo jotu seen gannaaw te lu ci bari bari mënuñu koo amal seen bopp. ba tax na tam dañuy ñëw ci wàllu politique ba tey jii. pour pour terminer daal di wax ci euh, li nga xam ne ni moom moo di assemblée générale de l'ONU bi nga xam ne ma nga am fële ca fa nga xam ne ni moom moo di ci dëkk bu l'oncle Euh, ku ne xam na ni moom mi nga xam ne moom moo di président de la république Macky Sall ma nga fa ak ay ñoñam mm-hmm. gis nañu fa sax ñu photo euh, wala sax vidéo euh, Gaston Mbengue ak mm-hmm. yeneen ci ay ñoñam yoo xam ne ni nee nañu ana lan la ñuy ut ci assemblée de mm-hmm. l'ONU mais nañu xam ne aussi lii du fi lu yees du fi lu yees ñu xam ne duñu ay do borom dombal tànk wala sax utiwuñu dara ci ndaje yu mel noonu xëy na ci lu ñu xalaat ñu jël leen tey ji daggal leen biir yóbbu leen ci jëmmi Sénégal bari paas bi nañu xam ne lu yàgg la ba tax na eh, ki nga xam ne moom moo di njiital réew eh, bu eh, Nigéria di wuyoo ci turu Muhammadu Buhari moom gis nañu ba mu yëkkati ay kàddu daal di koy jëmee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di président yu yu yu yu Afrique yi mm. rawatina ñi nga xam ne ni tey jii nee na ñoom la lay lay adressé li nga xam ne moom moo di ay parole mm-hmm. mu di ñi nga xam ne dañuy uti ay troisième mandat te nee mm-hmm. nañu loolee fii ci Afrique dañu ko war a xeex mu jóge fii dafa nekk loo xam ne nii nee na baaxul ci Afrique day jëmale Afrique ginnaaw waaye itam euh, tension bi mu mën a jur. Mhm. Euh, situation bi mën a bi mën a indi crise bi mën a indi ci dëkk yi ngay xam ne président yi nga xam ne ñoom ñoo fa toog. Mhm. ñoom ñoo ñooñee ñu ngi koy laaj nee na lu ni mel dañ ko war a jëlee ci Sénégal. mu mhm. jeex fi tàkk tàkk bokk na ci. président Macky Sall mi ngi fa woon toog. mi ngi dégg ca la muy wax président Macky Sall moom tey jii la ñuy wax ne mooy teg ay jéego. jëmee ci troisième mandat. ndax ku gis ay definam ay waxinam euh, ba ci remaniement bi mu def nii. mu teg laaji troisième mandat xëy na nag bu ko yedd mm. dabee euh, ku ci mel ni euh, président naataangoom boobu wax na keneen wax keneen wax mm-hmm. keneen wax xëy na dina gën a mën a bàyyi xel ci loolu donte ne nag sénégalais ñoom tam mm-hmm. ba tey noppiwuñu ba mu amee euh, deuxième mandat am en 2019 ba tey ji noppi mm. bu déggalul ñi tam mën a déggal xëy na mm. ñooñu wala sax mu xam enjeu yi koy xaar wala mm-hmm. sax mu xam fi sénégalais yi bëgg a dem ak moom ci li nga xam ne moom moo di troisième mandat ba démb sax maa ngi ko gis bi ñu bunkeriser mbeddu ndakaaru yi Euh, mairie bu mairie de la ville bu Ndakaaru mm. euh, gis nañu que ni ñu tegee woon yoon ak tribunal ak mm. yoon ni ñu ko bancarisé woon alkaati taxaw fu ne sénégalais nee nañu ko xeexatuñu jamono ji li ñuy xaar moom mooy mu ne troisième mandat ñoom ñu mën a génn ci ñoom di yeeg yeneen ñu ni mel ay commentaire nag la ñuy lire suñuy wax waaw c'est à préciser ah donc euh, gis nañ moom Gaston Mbengue peut-être vidéo bi mu def démb doon xupp xay na ressortissant sénégalais yi nekk États-Unis doon profito xëy na ci occasion boobu pour wax le président Sall ci seen droit la ñu nekk c'est des sénégalais yu nekk foofu noonu bu président bi ñëwee am nañu droit xëy na foofu dëkku démocratie la wax li leen metti mais après gis nañ Gaston Mbengue def vidéo di leen xupp wax a xas après doo comprendre moom Farba Ngom et a précisé que Farba Ngom démb lañ doon installé 14 commissions yu nekk ci assemblée mais demu fa dafa préféré ànd ak le président Sall en voyage et je pense que loolu c'est à mu nekkoon information yu am solo. macha allah comme ni ko a baax. waaw ba euh, suba ni ki ni ki suba. ba suba paayeeg maire di maire bu mag bi daal di ñëw. <laughs> mi ngi noonu alors euh, di la jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal aussi fidèles téléspectateurs yi.